asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum asalaamaaleykum man la Seydina Ousmane Dramé bu le réveil des consciences fois del rek di ndokkeel waa Casamance war a waxtaane jëmee ko ci Casamance ñu am jom Aline Sitoé Diatta ca tribunal ba Casa si yëpp jóg toog diju jàkkaarloog Macky Sall am ca ndam vive la Casamance nous sommes des Casamance lañ bokk nun nooy waa Casamance dakaar yëngu leen Dakar yëngu leen c'est votre tour relevez le défi bravo la Casamance bravo la Casamance nooy yéen yéenay nun jaajëf waa Casamance bismillah ñu door émission bi waxtaan wi du ñëpp ko bokk ku ci am xalaat dolli ko ci asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des euh, dañuy jël te bañ a ndax lii lu ñu yàgg a def la euh, te lu ñu yàgg a foog ci waa Casamance la muy jom ak fulla ak fayda ak ànd képp ku dib Sénégalais ku war ngaa xam ne waa Casamance amuñu ay caaxaan te lépp loo xam ne ña koy def fulla ju mat sëkk ak dignité bu mat sëkk la ñuy àndal dikk def ko lii xew ci tribunalu Casamance bi defe naa ne kenn béttul kenn ndax Macky Sall day saay-saay boo xam ne euh, aw fitam akum xelam euh, mën na koo jóo ci def yi fi def mu yàgg koo def réew ñépp di ci teg seen bët waaye tey bu Casamance taxawee boo bënd gi ni ñu ànd ko dal ak tey xam ne seen maire lañu jàpp xam ne seen doom lañ jàpp xam ne un citoyen sénégalais boo xam ne dafa taxaw ak un projet pour redresser le Sénégal moom lañ jàpp ñu di ko àtte Casamance dama ne dereti Casamance fu mu jaar yëngatu fu mu jaar yëngatu kon daal yéen waa Casamance ñun waa réveil des consciences dans l' ensemble dans l' ensemble avec tous les Sénégalais je pense bien ñu ngi leen di ndokkeel di leen sant te di leen gërëm yéen waa Ndakaaru lii Casamance def war ngeen ko man ndax Macky Sall bu dee bay xataraayu naan usmaan Sonko Dakar la dëkk dafa ragal waa Casamance yéen waa Dakar mu ñeme leen ñeme googu mu leen ñeme moo tax fu mu ko àttee mu gilti fu mu ko àttee war koo téye fu mu ko àttee rek gekk ko kon yéen waa Dakar war ngeen di jóg war ngeen jóg ndax ki nga xam ne daa bàyyi ab dëkkam ci Macky Sall wax dikk dëkk ak yéen dëkk ak yéen te mu wóor ne tey bu déposoon candidature war a doon maire de Dakar doon ko defe naa ne wër leen a toog yéen waa banlieue bi yéen waa banlieue bi yéen a dëkkoo Ousmane yéen waa banlieue bi ak ba biir dakaar ak fu waay mën a nekk ci biir Ndakaaru war na laa wóor ne war ngaa jóg taxaw ndax kat Ousmane lii mu yëkkati ak lii ko yëkkati ak li mu bëggal waa Sénégal lu màgg la te ñëpp noo ko bokk xamandoo tubaab bi toog suñu bopp bi di ci póob booba ak léegi yàgg na dama ne ca njëndum jàmm ma njëndum jàmm ba nëgë ni ba nëgë ni Sénégalais amut jàmm tubaab bee ñuy décideel tubaab bee ñuy def jëfloo maanaam nous sommes des consommateurs tubaab lépp loo xam am na ko tubaab bi tibb yóbbu ba suñ gaz bii nga xam ne rek moom lañ yaakaar pour dunde ko suñ gaz bi nga xam ne moom lañ yaakaar pour commercialiser ko alal dugg ci réew mi suñ gaz bii ak pétrole bi ñu bokk yaakaar tubaab bi di ko taxaw ne danaa ko tibb lépp yóbbu comme nam defoon Niger jël seen uranium bépp yóbbu mu ko da koy def ñëpp bokk xamandoo dama ne ndokk ndokk ndokk ba Sénégal yi jógee bañ ko armée sénégalaise li leen waroon defu leen ko waaye day askan wi ñoo leen fi teg askan wi moom réew mi te askan wi ngeen di défendre booba nag yi ngi yuuxu ngeen di ko dégg màkki diñ domp nuy jooy ngeen di ko dégg màkki tëj ak a tij ngeen di ko dégg màkki dema dem ba téye réew mi jaxase ko ba nga xam nit amatu fi jàmm yéen soldaar ngi noor a aar askan toog di seetaan parce que ñu jóg tey dama ne gàcce gu mag lay doon gàcce gu mag a mag lay doon intellectuel yi ngeen topp doon ay politiciens jaxase réew mi yéen soldaar yi ngeen toog ne patt di muñ ak liñ leen di may ay sagari oto ak di may lu ngeen jënde kër ak lu ngeen takkee seen i awaay xalaat leen xalaat leen ni histoire dana dellu si te képp ku fi doon ab général wala capitaine ak loo mën a doon sa kersa dana ko doon jóg leen ngeen sawe réew mi waaw puus nañ leen waaye ab doxat Sékou Touré nee na ab ragal boo takkee bët yi xel ma day gis Sékou Touré loolu la wax te seen soldaar yi Sékou Touré na waxoon am na waaw waaw une armée qui ne peut pas nourrir ses populations ne peut pas les yoo xam ne mënuñu dundal ñi nga xam ne ñooy seenu askan bu leen leen mën na leen a défendre dañuy fenn dóor yi ñu dóor métti na ci corona du may du may du mën na ci kanam soldats yi te yëngatuwuñu ñu soldats yi koy faj waaye yéen Casamance gàcce ngaalaama Dakar jóg leen na ngeen def ni Casamance def daje loo leen am lu ngeen di bañ réew mi moom ku di yéen xale yi paa yi duñ ci dara paa yi ñoo yàq lépp paa nañ paa yi dama ne suñ ma classe gee yàq réew mi yéen xale jóg leen ngeen defar seen adduna avec la science artificielle avec les mathématiques kemistri biologie lépp lu ngeen xalaat mu jëm ci technologie yàlla def na war naa yomb ci yéen adduna ak xam-xam a koy defar waaw nii laa toll du koo defar xam-xam bu mat sëkk koy defar xale yi dem leen ngeen jàngi am fulla nangu réew mi nun paa yi nun paa yi génne léendu ci assemblée nationale borom 60 ans bu mu ci dugg yéen xale yéen a ko moom waxtaan leen déggoo diisoo seet fu ngeen di jaar tey laaj mag ñi ñu leen wax li am waaw wala li am ñàkk xam li am ñàkk xam histoire Sénégal moo tax tubaab bi dominé ñu nii yéen na Casamance gàcce ngaalaama ba tey ci yéen lay dellu si waaw lii ngeen def nag nii la Ndakaar war a def te senegal géppit nii lañ war a def waaw nun waa réveil des consciences ku fi def jaloore wala nga def fi loo xam ne si lu wér la dañuy taxaw wax ko comme ni fi defee lu bon nu di ko wax Sénégal ñu ñor Sénégal moo nu yëkkati moo nu yëkkati. élection yi nag na ngeen fexe ba soo ko da ci bokk par force Macky Sall Macky Sall c'est un dictateur Macky Sall bu fekkee dafa bokkoon ci ab parti bay dem ah dana war a gërëm demu yoonam ñam àndoon seen ku leen doy ñu teg ko waaye Macky ni tànnal ku ñu fay teg loolu mooy leen li ci dara. lii moo lu yoon ne dictature bi day continuer waaw kan bu ko jóg am fulla am fayda am lu ñuy bañ sëriñ si teg leen leen foofu sëriñ si ak tubaab yi ñoo ànd sëriñ si ñemuñ tubaab yi ñemuñ leen waaw tubaab bi la dong dong dong la sëriñ si ragal billaahi wallaahi ñemuñ leen waaw armée française bi di leen déglu képp moo tax sëriñ si a ragal amul ku ci ñemi ubbi sëgg muy wax amu ci ku ko ci def ku ne tubaab bi tubaab tubaab bi roof la ci gaa yi itam moom waaw bu yéen nag bu leen bëggee déglu da ngeen torox bu leen déglu benn sëriñ duñ ay sëriñ waaw ay politiciens lañ billaahi wallaahi da ngeen ko bañ fanatisme baaxul bu baaxul seen maam yi lu baax lañ bëggoon seen maam yi defar islam seen maam yi boole Sénégal yi seen maam yi taxawal diine lañ bëggoon waaye bu ñëwoon tey rus kon noo ngi jégalu bu baax. dama ne bu seeni maam del si woon daañu sëgg. waaw l'islam yëpp yàq nañ ko l'islam yëpp ay parti politique la lislaam yëpp dama ne màbb ni ci réew mi yàlla nañ buur yàlla suturaal te delloo nu sunum réew yàlla nañ buur yàlla suturaal te delloo nu ci l'islam jaajëf jaajëf jaajëf